sëñ Muntaxa bàyyee ko sëñ Sidi mu jël Abdou Lahad Ka jox ko dëkk bi. mu ciy góorgóorlu mu ciy góorgóorlu. ñu boole ko téeméeri conseiller conseil yi doonut loo xam ne sëñ bi tëbtu rek ne diw ak diwkaay Abdou Lahad Ka tëbtu ne diw ak diwkaay dañ ko def par quota li ci commencé ci sëñ Modou Moustapha ba ci sëñ Mourtala kenn ko ne ñu laaj la ñaar mooy suppléant ak ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy lii bi léegi ñooñu ñëpp bi ñu ñëwee ak seex ñu dajak muy téeméeri nit ñu dajale leen ci benn barab ngir ñu saytu dëkk bi yow fi mu ne bu ñu la dëkk bi téeméeri nit koy waxtaane ak Abdoulaat Ka ma ca ko gëm dëkk bi lëndëm kurus benn lamp takkut. loolu lan mooy jafe-jafe dëkk bi voilà dëkk bi lëndëm kurus benn lamp takkut. Hmm. xasa xun ako mbalit. ba fii may waxee yow ñu ngi toll ci situation nawet baa ngi ñëw màggal gi. expert wax nañ na waaw moom laa lay wax dama ne la expert wax nañ na màggal gi. Hmm. ci kanam tuuti dañ dugg ci biir nawet bi. Mm. ba fii may waxee yow sécurité gun canal yi. Mm. ci àdduna ba mu sosoo ba nag ne maa ngi doog a digg xalif seen daal di murid communiqué ne nañ sécurité canal yi noonu murid yi. kon ça veut dire que ni am na manque.